day farata mooy doon fukk ak ñett ci ni wàññee diir ba ngay wax asalaamaaleykum nga toog ko itam farata la bi fukk ak ñeent foofu nag la ab wàññeem moom fukk ak ñeent la wàññi la tax mu nekk fukk juróom nag ba ngay jàng tasawu dafa wàññiwaale woon yéene roy ci sa imaan ca ba ngay tàmbalee julli bu fekkee bëgg nga kooku jiite la xam ne mën la tàmbali sa julli yow dong gannaaw ba rek kenn julli fi sawet nga jékki-jékki ànd ak moom ca noonu te yéene woon ci njëlbeen nga roy roy nga ànd ak boobu rek moom la indiwaale wut te boobu nag moom bu fekkee naroo kenn jiite la du bokk ci faratay julli moo tax ma wàññiwaale wu ko fii wa ni niyatin sartu bi yéene la dal alaami fa xalam ya xalam ya mooy borom xam-xam yu mag ya xiraanu xaa mooy lëkkaloo ngaag takbiratal ihraami kabaru armal yéene yéene dañuy sart mu lëkkaloo wax gi allahu bar waaye nag jubluwuñ nga di ko jéem a lëkkale ba sama xel di jax-jaxi moom daal boo waxee sama xel ne yéene naa tisbaar rek di wax allahu akbar mu sos ci boo wax sam xel ne yéene naa wala yéene naa gii teew dana di gaaw rek wax allahu akbar mu sës ci waaye jaxe-jaxe ci bëgg leen lëkkale ba mu lay andil jafe-jafe xaddul faraidi li mu jeex na xunaa fii xalaamaa ci kaw li nga xam ne xat xakaa nett li na ko al axdari axdari yu nga ne alxaawi may aji làq alxulaa kaweya mën nga ne alxaawil xulaa may aji làq kaweya ni boroom al axdari wàññee farata yi mooy nii muy fukk ak kon nag foofu la yam wàññi ko ni mu ko wàññee fasul li ab dog la fii sunani xaa ci ay sunnaam moom julli wala na ati nan dikkee bax daxaa ci gannaaw farata ya bi xaddi sunani ci limub sunna ya wa bil fadaili ci nganeel ya bi nazamin ci aw way xasanin wudi aji rafet nee na bi indee yi ba noppi nag dañ jublu ci indi sunna yi bu sunna yi jeexee ñu teg ci ngëneel yi mooy sunna yi julli daal la ñu bëgg indi léegi bu noppi ñu teg ci ngëneel yi julli min ha bokk na ca al iqamatu liqaam liqaam sunna sunna su dëgër la soo xam ne sax moo gën a dëgër nodd ndax moo gën a sës ci julli gi liqaam na mooy nga ne allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati du tee ne mën nga booy tudd baat yi fu sa kàddu daaneele nga maas ko maas ak nekk ndax loolu wéral aw njàngin la wa suurat ak saar talaat woo topp na fatiha tan fatiha maa xiyaamin ànd ko taxawaay xadd sabata bopp sax na na ci sunnay julli saar wi ngay jàng ci gannaaw fatiha ci ràkk bu jëkk ak ràkkam ñaareel ci mboolem julli farata yëpp yëpp na ñoo ko am jàng saar wa ci boppam sunna la taxawaay ba ngay taxaw jàng saar wa itam sunna la ngi liqaam bi ak saar wi ak taxawaayu saar wax wasir ra'yalu wal jaxar ak biral xoddaxoo nanga ko limaale kasaaka na noonee te neexee itam jàng wasirru wal jaxru kasaaka xoddaxoo nee na yàllu ca fañ la ko digale sunna mooy wax ca kaw ca fañ la ko digale ba tey sunna la yàllu moom mooy saw laamañ mi ngi yëngatu ngay wax baat yi waaye ko sax ci sa nopp sa nopp du ko dégg biral nag moom mooy li ngay wax lu gàtt gàtt yaa ngi koy dégg ku sus yow di ko dégg yellu dañu ko digal ci tisbaar ak takkusaan ak ràkka bu ci timis ak ñaar ñu mujj ci gee ñu digal ñu ko ci ñaar ràkkay suba ak ñaar ràkkay ajuma ak ñaar ràkk njëkk ci timis ak ñaar ràkk njëkk ci gee ñaar ràkk njëkk ca timis waaw ak ñaar ràkk ñu njëkk ca wa samiha allahu liman hamidahu ak wax ne a dégg na allahu yàlla liman ñeel ka nga xam ne hamidahu sant na ko samiha allahu liman hamidah boo dee julli yow dong wala ngay jiite lu ca nekk sunna la su fekkee am na ku lay jiite nag moom kooku day wax samiha allahu liman hamidah mu nekk sunna yow nga wax allahumma rabbana walakal hamdu buy ngëneel waaye rabbana walakal hamdu ji moom ngëneel la aggul ci sunna fa kullu takbirin bépp kàbbar siwa ma ndare ba nga xam ne xuddima jiitaleef na ko fa sunnatun la ala tifaaxil wala maay ci dëppoo mooy xam ña nee na mboolem allahu akbar wax ci julli gi boo ci xasee génne ba nga tàmbalee woon ba nga tàmbalee woon moom rek kabar armal farata la waaye bu bokkut moom rek ci julli gi sunna la wa hakaza ni ki ni at tashahudaani yaari taaye suba rek moo dul am lu mat ñaari taaye bu fekkee rawuñu la ja di sax buñ la ci rawee da nga ci am ñaari taaye waaye ku bokkut suba moom faaw rek mu gën gaa néew ñaari taaye bu nekk nag sunna la ab jataayam ba tey sunna la nga xam ne kon taay bu nekk jataay boo ko wàññee muy ñeenti sunna wal julus ak jataay ba illa ci da taxliili ba ci tàmbalik sëlmalu yewiku ba xaaluhu wax na ko arraisu kilifa ga maanaam jataay bi nga xam ne moom ci nga nar a sëlmali moom ya ci tase daa bokkut ndax dafa am taaya am julli ci yonante bi am ñaan am wax asalaamaaleykum xam ne kon jataay mujj moom yent na ci tase lu ci nekk nag moom boo ko jataayam ñooy bokk àtte taaye ji sunna la ab jataayam sunna lay doon bi sunna la ab jataayam sunna lay doon ñaan luñ sopp la ab jataayam luñ sopp lay doon wax nga asalaamaaleykum farata la jur ba ngay waxe asalaamaaleykum farata la wàññi woon nañ ko ca farata ya taqdimu naa sunu jiital fatihatan fatiha xaala suwari ca saar ya yoon def na ko xam sunnatan muy sunna la daa ahli nazari fañañ settantal xam-xam nee nañu nga njëkk a jàng faatiha ba noppi dool caa teg saar wa bokk na ci sunna julli yi nga xam ne boo doon julli njëkk jàng saar wi door caa teg faatiha da nga bàyyi sunna taslimatun akub sëlmal saaniyatun bu di aji ñaareel lil muqtadi ñeel aji roy sit na nga dolli isharatun junj ala imaamihi ci limaanam ba ba tey nee na bu fekkee am na ku la doon jiite bu ngeen sëlmalee ba nga wax asalaamaaleykum muy sa farata nga waxaat ndànk asalaamaaleykum junj ko jëmale ci moom waaw loolee sunna la kon wax gi asalaamaaleykum jëmale ci sa ilimaan te wax ko ca suuf bañ ko yëkkati sunna la wa misluha am kemam la saalisatun sëlmalu ñetteel la xoo ñeel aj xa xalaaman ci ka nga xam ne kaana nekk na fii yasaarihi ci càmmoñam faq fu na nga xeeñtu mooy na topp almalaa mbooloo ma ba tey bu fekkee bi ngeen di julli na ngeen toogee woon am na ku la féete càmmoñ te am na julli ko lu matub rakka kon nga wàññi ko wax ko asalaamaaleykum ndànk ba tey bu fekkee ne kooka amu ci lu matub rakka mbaa sax yow yaa mujj foofu ci sàppe sa kenn féetiwu la càmmoñ kon doo delloo foofu dara waxu dana nga limaale min sunani xaa ci ay sunnaam yaa saax yo sama àndaale aljahra biral aydan ba tey bi ci sëlmal ba alwaajib bay aji war sëlmal bi nga xam ne mooy sëlmal yooyu ko bi mooy sëlmalu farata bi nga wax ko ci kaw sunna la moo gën nga déey ko waxee kasaani ki ni salaatu naa sunub julli àla ci yonante bi yàlla na dool tedd nga ale yi ci moom man yàlla mi nga xam ne axta may na alwusoo la àgg la xooñeel ko ba tey julli ci yonante bi sunna la waaye xanaytu jublu naa fi tashahudi ca taaya ja al axiri ji ayu mujj al axiri taaya ju mujj boo ko déggee moy taaya ja nga nar sëlmal rek mooy taaya ju mujj yooyu na nga julli ci yonante bi bala ngaa sëlmal ñaan teg ca nag bala ngaa sëlmal loolu moo gën nga xam ne julli ci yonante bi moom sunna la ab jataayam sunna la ñaan la ab jataayam lu ñu la ñaan gi soo ko ci arab ñu sib nga wax ko ci weneen langue waaye bu fekkee mënoo ko ci arab mën nga ko wax ci langue wa nga mën wa sajdatul anfi wa sajdatul anfi ak sujootu bakkan alal mashhuri ca la ñu siiwee wal kaffi ak teng la wa rukbati ak bëti wom ba atraafil xadami ak cati ndëggu la bokk ci li ñu weñu waale ci sunna yi booy sujoot nga sujoote sa bakkan ak sa teng ak sa bëti wom ak sa cati baaraami ndëggu tenq yi moom da nga koy rëptuwel mu tolloo fa nga dëpp sab jë bëti woo yi nga sukk ko ca ci baaraam ndëgg yi mu yëkkatiku samp bakkan moom xam nga ko ni mu dëppoo rek moom jëbi jëbi de farata moom muy sunna rek nga xam boo boolee na def bakkan ba boolee sujjóot na ngay def bëti wóom yaag tenq yaag cat ndëgg yi yëpp ngay boole def ko benn sunna wa suturut ak sart li xëy ma amoon ñeel kul ma moom ya umu koog dana jublu ya umu koog dana jublu ax li danaa jublu bii ci moom alwasa kenn rek kuy julli maxa imaam yi ànd ak ilimaan bokk na ci sunne julli yi bu fekkee donc yaa ànd di julli te ragal ne bala ngaa sëlmal am ku romb fi sa kanam nga xam ne yaay jiite te ragal ne bala ngaa sëlmal am ku romb fi sa kanam kon nga wut sattir samp ko mbaa nga tëral ko fi sa kanam loolu sunna la daañu wax lan mooy sattir mooy nii aqalluhaa gën jaa néewam dur yi xameef na ko la dal alaam yi fa xalam ya xalam ya mooy borom xam-xam yi siiw ya ruuxil oodi buy rëyaayu xeeju bant tal moom la xilaz di firi waaye tal mooy rëyaay rëyaayu xeeju bant maxtooli ziraahi ànd ak guddaayu xasab xëyru mu waswisin tey du aji jax-jaxee mu daaman mbir muy lu ñu saxal zanaqaa tey boroomu seet xi na nga wattu suñ tool naqaa la woon dañ def rek naqaa ngir way ah boobu nag moom xi na nga wattu dong la xam ne ñaari baat la yu bokku te nuru benn daa wax ne la ngay def sakri moom lu mu néew néew da ngay xool rëyaay ba rëyaay ba lu mu néew néew na rëyee ne ab xeej ab xeej nag bu fekkee xamoo ko mën nga ne yet wu digg rek fekkee moom nga gën a miin lu mu gàtt gàtt na guddee ne xasab bu mu ko yées te itam bu mu rafet lool lool mbaa mu ñaaw lool lool ba nga xam ne day jax-jaxee sam xel nga di ko xalaat ci julli loolu ëpp naa teg sa kanam tey na def tekk mu nekk lu yëngatoo ko dal te it na set wecc bu mu seen sobe kon sartu bi ci dajee loolu mooy statut sunna la nga teg ko fi sa kanam bu fekkee yaay jiite mbaa yow doom ngay jullit regal ne dana am koom fi sa kanam te bu la wëree kenn romb fi sa kanam moom jëru ko bu dee maamum nag moom ilimaan doy na ko statut digganteem ak ilimaanam du fa jaarale kenn mbaa lenn mbaa dara bu ñu nee yaa koy wut tëral ko fi sa kanam mbaa nga samp ko fi sa kanam jubluwuñ ne faaw yaa koy wut def noonu déedéet mën ngaa fekk rek aw jën wu ñu samp mbaa garab gu taxaw rek mbaa nga jullee jàkk ji ne fekk ab poto nga taxaw fa kanamam def ko sa sattir ndegam moom mat na sattir rek baax na nga fekk ko mu samp fa nga taxaw def ko ko ak nga wutal ko sa def ko fa ñooyemoo rek moom faslun li ab dog la fi fadailiha ci ay ngëneelam moom julli kon damay ñëw ci ngëneelu julli yi wa in tasal ndem na nga laaj an jumlatil fadaili walis mboolem ngëneel ya faxaaka jàppal xaddaxaa seenub lim xonaa fii yaa saa'il yi yow sama aji laaj nee boo bëggee xam ngëneelu julli yi kon jàppal ma waxal la ko fii wàññil la ko benn benn rafaul yadayni yëkkati yaari loxo ya xadduwa uddunayka ba mu tolloog si ñaari nopp la daa takbiratul fa kàbbaru armal xadd banaa feeñ na min bokk ci ngëneeli julli nee allahu akbar bi ngeen jëkk wax ci julli nga xam ne farata la boo koy wax nga yëkkati say loxo ba mu tolloog say nopp mbaa mu tolloog diggante say mbagg ak say nopp yëkkati loxo yooyu ngëneel la walhamdu ak wax rabbana walakal hamdu bax da raf yi ci gannaaw siggi ga min rukkoo xiñ bàyyi ko ci rukkoo lil fas di kenn wala ma amoom yi ak ma amoom dil xudoo boroom ku toroxlu boo dee jul yow moom boo siggee ci rukkoo bi di nga wax samiha allahu liman hamida muy sunna du tee nga waxaat nag allahumma rabbana walakal hamdu bu ko defee muy ngëneel soo ne rabbana walakal hamdu baax na boo ne allahumma rabbana walakal hamdu ba tey baax na bu amee kuy jiite nag ak ak ka ànd moom nag kay jiite moom mooy taqoo sami allahu liman hamida ka ànd ak moom mooy taqoo allahumma rabbana walakal hamdu waxaa gisaani ki nii atta miin wax amiin aydan ba tey laxumaa ñeel leen ñoom ñaar fi sirri ci yelu aw fi jëxri wala ci biral xindal xulamaa fooy xam ña ba tey kenn kuy julli ak maamoom ñoom ñëpp ñooy wax amiin maanaam boo dee julli yow dong moom sopp nañ nga wax amin gannaaw boo waxee wala daalin waaye nag bu dee ci yoonu Maalik moom liñ koy sopp sopp nañ koy wax ci suuf rek waaye kenn du ko yëkkati boo dee jiw dong moom moo xam ne nga yelu moo xam ne ngay bidexi moom daañu sopp nga wax amin te yelu ko bu dee maa bu déggee ilimaan wax wala daalin ñu sopp moom itam mu wax amin mu des nag ilimaan mi nga xam ne mooy jiite ilimaan mi jiite moom bu dee yelu rek la koy wax waaye bu dee biréel moom taa muñ mu wax ko boo toppee yoonu Malik moo tax mu naa amal imaamu daal ilimaan fa yaquluha dana ko wax la dul israari fa yàllu ga faqat dong bila ijhaarin ci lu dul bërëli ilimaan moom bu dee yàllu rek di jàng ca suuf la ñu sopp bu agsee ci wala zaalin mu teg ci amin waaye bu dee biral nag moom dañoo bëgg rek bañ wax dara mën naa na nga dégg ci yenn ilimaan yi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañu ñoom ñu koy wax ci kaw maam yi itam di ko wax ci kaw waaye loolu daal bokkute yoonu Malik yoonu Malik daal moom ni ñu ko waxee rek ak ko mën di wax na ko wax ci suuf te ilimaan bu dee yàllu na koy wax waaye bu dee gudeel moom na bàyyi maam mi wax ko te moom mu bañ ko wax waxadda limaale na tasbiixar rukkooxi sabal rukkoo ba wa duxa ak ñaan nga inda sujoodi fa sujood ba kullu képp koo xam ne waa watu na fiq xan fiq ina mboolem ñu dégg fiq maasi nañ ci ne boo jàppee ci sa wóom sabal ba ngay sabal ngëneel la wax nga wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi loolu nga ne la boo waxutoon dara itam du tee bu baax ba tey saabal ba ngay saabal boo dee sujjóot ak ñaan nga ngay ñaan boo dee sujjóot ndax rukoo moom nanguut ñaan rukoo moom saabal rek nangu waaye sujjóot nangu na yaar yëpp sujjóot moom nangu na saabal ak ñaan yaar yëpp luñ ci mën doon lu ñu sopp la boo sujjóotoon kese te waxoo dara itam du ko tee baax. mën nañoo wax nag boo dee sujjóot subhaana rabbiyal a'la boole ci allahumma xafir lii ko defee subhaana rabbiyal a'la ji ak sàbbal la allahumma xafir ji yàlla yàlla na ma jégal ak ñaan la leneen loo wax itam nag lu bëgg te loolu tey ak leneen loo ñaan bu la neexee ñaan ko tàpp yi lu naa sunu guddal a subha suba xiraatan ci am njàng tabiinu dana bir fadilatan bir mu ngi wa zuhru tisbaar yakkoon dana nekk duuna xaa yeesam takkoonu nag moo gën a yelloo al zuhru ndax li ñuy jigéenal baatu asalaatu te daa taxaw taxawaay salaatu zuhr yi daa wax ne booy julli suba tamu yow dong mbaa mboolem ña nga àndal ñëpp dañoo sawar ci julli gu yàgg amuñu ngànt amuñu dara fuñ jëm kon sopp nañ nga jàng ci saa yu guddi yaa gudd mu fasal guddi te moo tàmbalee ci benn ci xujuraat jëm si suuf ba ci xabasa nga jàng ci benn ci saar yooyu soo dee jiite mbooloo nag te mbooloo day faral di bari ay boroomi ngànt ak boroomi wérédéeg yooyu kon say boo jàng ci saar yu gàtt yi rek ba tey nag bu dee tisbaar sopp nañ nga jàng ci saar yu guddi yi da nga sawar mbaa ñu ngay jiite ñëpp maasi ci nga xam seeni mooy amuñu yenn yitte leen di gàllankoor julli bu yàgg moo kon ba tey sopp nañ nga jàng ci saar yu guddi yooyu tàmbalee benn ci xujuraat jëm si ci xabasa loolu mooy tiwaalul mu fassal taqsiruha ak gàttalu jàngee til xasri ci takkusaan sumal maxaribi topp timis bokk na ci ngëneel yi booy julli timis ba takkusaan saar yi ngay jàng ci gannaaw faatixe nekk saar yu gàtt mu wuuteeg suba ak tisbaar kon daal i bëgg a wax rek mooy sopp nañ booy julli timis ak takkusaan daal saar ya nga ci jàng mu nekk saar yu gàtt te saar yu gàtt yi moo tàmbalee sóoratu duha ba ci sóoratu naasi su max sub topp nga lim tawassutan diggu doomu la dal xisha fa gee booy julli gee moom taamu nañu nga jàng ci saar yu diggu doomu yi diggu doomu nag moo tàmbalee suuratu xabasa ba ci suuratu duha diggante boobu moo diggu doomu sopp nañu booy julli nga jàng benn ci sari yooyu wa kaw nu suurati nekku aw saar ulaa wala di gën a gudd min saaniyatin ci wow ñaareel zukki na miineef na ko minal fadaayil ci ngëneel yi nee na saar wa ngay jàng ci ràkk ñaareel mu gën a gàtt saar wa nga jàngoon ci ràkk bu jëkk waaw loolu taamu nañ ko ñu sañoon daal saar wa ngay jàng ci ràkk ñaareel mooy gën a gàtt saar wa nga jàngoon ci ràkk bu jëkk waxay atul aw melo maaloo mat nu di wuñ xam xinda rukkoo fa rukkoo ba maxa juloo si ànd ak jataay ba xaddaha limaali na ko ahlul furooxi ñooñ bànqaas fiq ñeen am na melaw ràññeeku ñu sopp boo dee rukkoo mooy nga jàpp ci séewum bu dëgër dëgër te bañ a xuggi sa gannaaw bañ koo duuxal sa boppi tam nga bañ koo téenal bañ koo sëgal lépp rek maase melaw ràññi ko boo deeru ko taamu nañ ko jataay ba am na melaw ràññi koo xam daañu ko wane ba tàyyi mooy boo toogee da ngay àgg suuf nga xam ne doo toog say tànk sa njekkikaay day àgg suuf say tànk nga génne ko ci ndeyjoor te it tànku ndeyjoor bi nga yëkkati ko ba nga xam ne baaraam yi baaraam yi day sampo toog loolu daañu ko lu bare bare lu ñu sopp la wa faddalu gënal nañu al qunuuta qunuut wal israar ak yelu bi ci moom xablan xif xablan ci njëkk sippiku mooy njëkk sëgg rek di rukkoo jëm ci rukkoo na nga yeewu qunuut bokk na ci ngëneeli julli boo toppee yoonu Malik waaye julli suba rek moo ko tey dañoo sopp ku ko yalu bañ koo wax ca kaw dañ koy defe nag ci rakkab ñaareel ba boo jàngee ba njàng ma àgg te sëggagoo rukkoo moo tax mën naa yuqaraw def na ko jàng fii saaniyati subhi ci ñaareelu suba faqa dong baxdan xidaay suuratin ci gannaaw jeexuk saar faxdar na nga watandiku xalatan njuumte rakam ñaareelu ci suba rek mooy am xunuut te it gannaaw boo jàngee ba jeexal faatiha ak saar wa ci lañ koy door a jàngee moom xunuut wa jaw wasa daganal na alxibru fóore ja alfaqihu ja ay dégg fiq ibnu xabibin te mooy ibnu xabib rukoo xaxoo tàbbeem nga bax da rukoo ci gannaaw rukoo yàlla bi ba ne aji na moom nga rukoo ba siggi door a xunuut xam nga léegi mooy nga jàng rek ba jàng ba àgg bala ngaa rukoo nga def ko lool moo gën say boo sàmm ko ibnu xabib nag moom nangu na nga rukoo ba siggi door a jàng xunuut nga xam ne boo xunuutee ba àggal da ngay jàll rek sujjoot waxut na nga lim ay dan ba tey ak duha ñaan nga bax da tashahudin ci gannaaw taaya taañin ju ñaareel unil te yàlla na joxeef la rus dan jub ba tey nee na ñaan gi ngay ñaan ci gannaaw taaya ñaareel yi boo déggee taaya ñaareel nag mooy taaya ja nga mën a sëlmali rek jëpp taaya joo xam daal nuru laa jógaat te ngay daa daañu soog boo julee ci yoonante ba noppi nga ñaan teg ca ñaan gi nag boo ko mënee wax ci arab daañu sib nga wax ko ci weneen langue bu bokkut arab waaye bu fekkee li nga bëgg a ñaan yàlla mënoo ko wax ci arab mën nga ko wax ci yeneen làng ni ki bu dee yow ngay wolof nga wax ko ci wolof mbaa bu dee séeréer nga wax ko ci séeréer ñaan googu nga la ñuy sopp la wa yekkoon dana nekk at wala di gën a gudd min awalin ci aji jëkk li siyaalis ci duxaan ngir dolli nan ñaan nga yaa faq yi nan ñëw aji xellu daa wax ne jataayu ñaareel ñaar nag muy taaye ñaareel li ci ëpp mooy gën a yàgg taaye ba ci digg bi mooy taaye yi ko jiitu daal ndax julli mën naa am yetti taaye wala ci rawee mbaa yooyu ne daal léegi taaye ji nga xam ne ci nga nar a sëlmali moom la wax li ci ëpp mooy gën a gudd taaye ya ko jiitu ndax moom day am julli ci yonente di am ñaan te ko jiitu moom duñ ko am ci Abdu wa Rasuluhu rek lañ yem wa faddaloo gënal nañu te yaamu nan ndeyjooru xinde salaam yi fa sëlmal ba mooy wax asalaamaaleykum kum ji nga xaw a dummóoy sa ndeyjoor ba ku la seen ku la xool seen sa pegg leex loolu taamu nañ ko ngëneel la taxariku naa ak sunu yëngal sa baabatan baaraamu sànnikaay boo dee taay nga yëngal sa baaraamu sànnikaay mu bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmoñ di ko taqoo di ko yëngal di ko yëngal rek ba kere ngay wax asalaamaaleykum yëngal baaraamu sànnikaay boobu ngëneel la tam mat mat nañu tamaaman ak mat ngëneel yi foofu la ñam mu far ci mu far ci teg nag kon yi ñu sib ci julli wakkarihoo sib nañu wuqoo fanaa sunu taxaw bidi jilin ci ab tànk waaxidat bu di benn fii yi tooli fex ci dudul ja nee ngay julli na taxaw ak sa benn tànk yëkkati benn ba mbaa nga xaw koo lonkal loolu sib nañ ko dañoo bëgg nga taxaw ñaar tànk ñëpp waaye taxaw ak benn tànk rek yëkkati benn ba lu may nga xam soo julli daa yàgg nga def ko ngir noppalu ndax taxawaay bu yàgg bi su boobaa duñ ko sib waaye bu fekkee du taxawaay bu yàgg dara waral ko fekkee taxawaay bi yàgg warul ko rek kon daañu ko sib nga taxaw benn tànk bàyyi ba ca des wakkar yoxoo sib nañu iqtiraanana sunub lëkkale rijlay ni ñaari tànk wal jaaxla ak def ga fil fami ci gimiñ nga dirha may ni lu mel ne ñaari dërëm aw dirhamin mbaa benn dërëm aw xëyrihi mbaa lu dul moom maanaam sib nañu ngay julli susale sa ñaari tànk ba mel nañ laa jéng ñoo bëgg nga yàng ñaari tànk ñi mu xaw a soree waaye ni nga taxawee nga susale sa ñaari tànk mel nañ laa jéng loolu sim nañ ko ba tey julli sax ci sa gémmiñ loo xam ne moom nekkul luy seey ba wecci aw ñam boo doon julli sax tàngal mbaalu mën a seey moom dañ koy jàppeeg lekk waaye nag boo julli sax ab dërëm mbaalu mel xeer te teewu laa mën a wax baat yi su boobaa kon daañu ko sib waaye bu la teewoon a mën a wax baat yi tax mu dal di araam bëgg a yàq julli gi wal iltifaata ak geestu julli di geestu moo xam geestu jëm day joor mbaa càmmoñ ñoo ci yemoo lépp dañ ko sib waxee kasaa ni ki nii taxumiidu xay din gëmmal bët fi salaati ci julli illaa li xudrin ndara ngir ngànt misli riihim ngelaw aw xaraamin wala aji araam fa innahu naka moom yuraamu def na ko sàkku xiina isin ci waxtu woowee min fu ci moom di julli gëmm say bët te amul sabab loolu sib nañ ko bu daa am sabab nag mel ne ngelaw li nga bañ fatt la baat ngaa bañ a xool araam nag su boobaa dañuy sàkku moom nga gëmm say bët ci lu wér wér waaye bu dul loolu na jekki-jekki gëmb rek noonu say bët sib nañ ko wakarihoo sib nañu xaw xalatan wax laa xawla wala quwata wa basmalatan ak wax bismillahi rahmaani rahim fil fardi ci julli farata mislal xasbalati kem aouzu billahi di laafi naxli du caagéenu ci naafila ina boo dee julli moom li wóor ci yoon maal daal mooy sib nañu nga wax aouzu billahi min ashaytan rajim ba bismillahi rahmaani rahim mbaa laa xawla wala quwwata yooyu yëpp dañ ko sib ci julli farata julli naafile nag moom sibuñu ko ca loolu daal moo wér ci yoonu Malick wa kullu ma lépp loo xam ne yu was wi su day jax a sax sa jëmm ja da daa salaati yi fa julleem nga fa daaka lu ñu sib la feeñ na fii jay bi moo xam daa nekk ci poosam aw zahrihi wala ci gannaawam aw fi amaamin wala ci një mu ci kanamam aw jambihi wala ci wetam kama nassa ni ki yaxale bi ci loolu al imaamu ilimaan ba yéen dañoo bëggoon daal booy bëgg a julli lépp lu nar a jax-jaxi sam xel la ko yàqal nga tàggoog moom bala ngaa julli moo xam loo defoon ci sa poos la mbaa ci sa gannaaw mbaa ci sa kanam mbaa ci sa ki def ci xaalis mbaa dara loo xam daal léegi moom mën naa jax-jaxee sam xel daal moom tàgguñ ko dañoo bëgg rek booy bëgg julli daal noonu ñu ko waxee lépp lu mën a jax-jaxi sam xel rek nga tàggoog moom bu dee soxla su far sax soo ne boo dee julli bu dee sam xel dem ci sax boo ko mënee gaaw faj nga gaaw faj ko bala ngaa dugg ci julli ga ba karihoo siit nañu alfikra xalaat la def salaati fa julli ga fii kulli amrin di mépp mbir aatin ko jub àdduna nag boo julli nga teewlu bu baax a baax bañ a jëmale sam xel ci mbiri àdduna kon siit nañu ngay julli ci xalaat dara lu bokk ci mbiri àdduna bu xalaat yee baree bare bari na ba xamatoo dara dara dara ci julli gi nag moom kon see boo dagg ko tàmbaliwaat waaye teewul li fee yaa ngi xam nag moom la ngay julli lu xalaat yee bari bari rek du tee su tuyaabu mooy néew rek ndax la nga teew rek lañ lay fay ci julli gi la nga teewlu kenn la ko fay waaye nag yaa ngi xam li ngay def rek moom kon julli gi jàpp ne baax na ci shariha mooy kenn la julloowaat waaye nag boo demee ba xamatoo ca dara dara dara dara ndax xalaat yu bari nag moom war koo dagg tàmbaliwaat ko kon fajitanit na nga teet lépp loo xam ne yashxalu dana soxlaale mën na itam yushxilu yaa yëpp mën na ko dana gàllankoore mbaa dana soxlaale al xushoox yi wal si ragal yàlla da daa salaati ko fa sa julli yaara jul yow waa ji mu ne kon daal lépp lu la mën a gàllankoor ba teelaa teew teewlu julli gi ak teewluwaale màggaayu sa boroom bi nga taxaw fi kanamam na nga ko di moytu bu baax a baax boo dee julli faslun li ab dog la yu dëkkaru boobu def na tudd fii ci moom alxushuux ragal yàlla fi salaati biiru julli wa maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bi ci moom dangay wax ci bunt bi boo dee julli ni nga war ragal yàlla maanaam teewlu màggaayu yàlla sam xel lépp nekk ci julli gi te nga teewlu ak màggam moom mi nga taxaw fi kanamam lu mel noonu ci lay bëgg a wax xadd nas sa yaxal na fii taalifihi ci taalifam wa man ka nga xam ne alima xam na bi ànd lis ci naka ñel na julli nuuran leer azuma koog màgg na wa anna daaka nuura ak naka googee leer yushriqu dana leere bii ci moom qalbu musallin xolub aji julli xaaxihin judi aj ragal yàlla fanta na nga yeewu nee boroom laxdar wax na ca taalifam wane julli day dafa ame leer gu rëy rëy leer gu màgg màgg te mu ne nag bu fekkee boo dee julli da di sàmmoon teeg julli ga teewlu ko bu baax teewlu màggaayu sa boroom bu baax a baax leeru julli googee day ñëw ci sa xol leeral ko sa xol di leer kon nag fa in ataytaha ndéem dikkal nga julli fan si xan na nga ci xal ba ko sa xol min haasihi ci jële àdduna wa maag la nga xam ne fiiha nekk na ci mu àdduna maxan boole seen wastaxil te nga soxlawoo bi muraqabati mawlaaka ci fugloonteeg sa boroom allazi boroom ba nga xam ne dafa def nag lazi taxaway wi tusalli da nga juli li wàcc yi ngir jëmam wam tasil te nga topp ndigal dafa def nag faa boo defee waaw bu baax daa wax ne nag ndegam julli noonu la amee leer gu rëy rëy te it boo dee julli di sàmmoonteeg na nga war a jullee leer googu ñëw ci sa xol sa xol daal di leer kon boo ñëwee ci julli gi na nga dindee sa xol ci àdduna ak li ci biiram yittewoo rek sa borom bi nga xam ne moom nga taxaw ci kanamam di julli ngir jëmum ju tedd ji sa yitte yëpp la jëm ci sa borom nga bàyyi ko xel foo toll xam ne ci kanamam nga taxaw di julli waa taqidan na nga fas ne anna salaataka nag sa julli ak toroxlu la bi sajdatin ci ak sujjóot wa bi qiyaamin ak taxawaay wa rukoohin ak rukoo wa annaha ak naka moom tawaaduhun toroxluk maanaa la lillaahi jëm ci yàlla subhaanahu soril naa ko lépp leerul ci moom fama lahu déddi ko ñeel mudaahin jenn aji nironte muy kenn yemawut ak moom rek lépp ak toroxlu la bi haadihi ashiyaay ci yile yëf wa duxaay ak ñaan ga wa zikri ak tudd yàlla ga wa tasbih ak sabal ga wa nidaay ak woote ga ay doon ba tey wa ijlaalun te ak màggal la wa ta'zimun tey ak màggal la xoo ñeel yàlla bil xafli ci sëgg ga wa takbir ak kabar ga raaxi na nga sàmmoonte ku la xoo léppam nee boo dee julli na nga jàpp bu baax a baax ne lépp julli gi toroxlu la jëm ci sa boroom moo xam jëfi cër yee ni ki sujjóot ak taxaw ak rukkoog wax ci làmmiñ ni ki allah akubar yeeg sikkar yeeg sàbbaal yeeg woog yàllaak lépp rek moom julli gi daal moom neena jàppal ne lépp lépp muy zahir muy baatin lépp toroxlul yàlla ak màggal yàlla dong dong la dara génnu ci rek jéem a jox sa boroom àqam ci wàllu toroxlu ak ci wàllu màggal ci biir ak ci biti waxaa fisan na nga wattoonte xala salaati ci julli an annaha ngir naka moom li taxa taxawaay li jàng innaha waxaa fisan na nga wattoonte mooy na nga sàmmonte xala salaati ci julli annaha ngir naka moom xayrul ibaadaati mooy ji jaamu yàlla yi waxal sim na nga màggal chanaha mbiram ne julli na nga ko fonk bu baax baax te xam ne mboolem xeeti jaamu yàlla yi julli moo ci gën a màgg xam ne lislaam moom boo xasee su gëm yàlla rek julli moo gën a màgg ci lépp lislaam laata turuk bul bàyyi seytaane